yow doo ñemee woote. Mhm. doo ñemee laajte danga naan naa toog rek ba am ay preuve wala gis mbokkam mu ne ma mbër yow xanaa yëgoon yi du def feebar. Mhm. Mhm. nga ne ko ah gis naa kat mais comme que léegi mais ku deewul ñu nga bind ne ndeysaan diw de finalement dafa mujj accident de faatu démb. mais oh. loolu sa chaîne YouTube. dinañ dem ba nekk dëgg sax nga wax ko nit ñi duñ ko gëm. da ngay jékki-jékki gis kenn ñu defal ko autopolice ci ginnaaw. ne diw de yàqu na nga cliqué duñ ci wax dara. waaye bëgg ay vie tamit yàlla na yàlla jéggal tamit bu yomal xiyaamee yàlla daf ñuy vie ñun ñëpp de te moom du ñu vie bàyyi ñu ci biir de nit ñi ñoo lay vie sa WhatsApp ba pare bàyyi la ci biir. Mhm. moom da lay vie ba pare vie la. vie est appliquée. <laughs> baax na. tey na waaye waaw taadaa day du ay caaxaan. tribune yéene kaay mais tribune ñëwul tey tribune ñëwul de xaw ma fu mu ne xaw ma ko jàddal concert de casserole sous l'air Diomaye li kat ouvre le bal ah bon. ah dañu doon conseil. affectation dans la magistrature. le choix des hommes. li ba li ban yéenekaay la. la. mooy kan la yéenekaayu sa ex patron bi. waaw. da ngay dem wala dootoo dem. non sama patron nga naan sama ex patron. non non ex patron la ah. ko def ex patron non ex patron la. si sama la kay. non non sans patron la kay. mukk la ah. ah lu la tey liggéey. Ah, lu la tey liggéey ko. li ma tënk rek mooy li leen tënk yéen. da toog muy dox. non non toogu ma da ngay ñëw déjà liggéey ñu lay fay seen. déedéet non non non non man toog liggéeyu mu fii di. allah kon fi def. loo dem loo demoo seen TV. ah fii yéen a ma forcé de. te bu naree <laughs> ëpp naa def. ok waaw eh, dimbale waaw déet déet papa. non non non. man de du ma la téye demal. la nga fay fekk ak la ngay xaar mooy yow Amina yow mi am nga am nga jot de doo ko bàyyi mu dem. bilaay ah, demal ba. man day. léegi mën naa toog toog nga dootoo demal. yow doo non dogal veste bi sama xel daal. Amina dootoo ngir yàlla boo ko teg veste bi non jaara man damaa tiit fi mu ne nii tegal veste bi rek. Amina toogal nga may wax ay tëddal ba tëddal. maanaam gis sa jëmmi maam. bu da nga xam boo koy jaar ah, jaara. wax nañ dëgg nag jigéen na nga war di neexal nekkate neexal baax na de. maa ngi doog a comprendre nag. te dafa mel ni ñoom sax boo leen neexalee dañuy wàcc. du ma neexal si côté eh. boobu. ah. la ak ku yor leket. Mm-hmm. bu def gerte wala bu def mboq. Mm-hmm. wala basi. lii rek mooy góor de lii rek la waaye leket woo xam ne moom dañ caa defu kaani ba mu saf sat di ko ko tuuf góor ñu bëri yow nee naa la dama ne xoolal Amina. Eh. dañuy wàcc. fu embouteillage gën a bëree ñu dugal fa. ñu dugg fa am na benn waay boo ko waxoon mu ne ndekete xale góor yi dañuy teel a wàcc dem mais ñoo la doon créer embouteillage yi dañuy nekk ci mbenn Dakar yu di wër mais la preuve couvre bi ñëpp dañuy teel a ñibbi mu ne kon gars yi li doon def ñoo ko tey. ñoo ko tey ñoo am na ñoo xam ne tamit seen soxna yi ñoo leen doon dundaloo loolu. dégg nga loolu waaye yow grand prix du chef de l'État une victoire chef de l'État à la vox boobu di ñëwal ñun ci gis nga Moustapha Guirassy ma nga fa de un passif important pour les enseignants dégg Aminata Touré ngi nii xaw naa rey waa APR waa APR de sa waay amul voilà Walf Fadjri ñëwal ñun ci silence des ténors de l'opposition face au pouvoir les raisons de mutisme li ma la doon expliquer léegi voilà Malick Gakou ngi nii Déthié ngi nii Mamadou Lamine Diallo ngi nii Idé ngi nii Xaafa ngi nii waa Pire ngi ci waaw Ngunda Sall moom li mu wax ci xalifa moom laa leen expliqué sànq ci biir journal bi. cent jours nga bëgg a jugé critiquer pour critiquer mu ne homme d'affaires la du heure bi dégg nga Serigne Thiam bu grand parti jarul compliqué de amul compliqué Malick Gakou soutient la mouvance présidentielle point Déthié waxagul waa PUR waxagul Idi waxul. dañ ko nam nag na génn de temps à autre. kan la Idi. man <laughs> man noonu laa pourtant ci moom laa yaakaaree nag interview bi de. ndaamal kajoor xanaa. wallaay ci moom interview bi. Mhm. nga ko mën a lijjanti de. parce que moom sax instant bi askan bi ñëpp ko namm en réalité. de dañ ko namm torop waaw maître maître dafa taxu wala mais dafa voyagé. honorable lijjantil ma maître. man mii ah ci àddina maître El Hadj Diouf man. maître El Hadj sama xarit boo xamante nii maître El bañ ma fi njëkk ba ma waa APR njëkk yóbbu police bi moom moo fi moo moo fi ñëwoon moom ma di ma défendre. njëkk ba sa yàgg rek off la. ma jékki-jékki benn jour mu ne luy taskatu xabaar ci mim réew Pape Alec digg bi la jaar ci digg ba nga naan ma lan. moom moom ñëpp lay attaqué loolu moom boo loolu moom bu ngeen ko ci toppee du ngeen ko mere ñëpp xam nañ jikkoom mais jàkkaarloo vendredi mooy bu ma liiree certificat Euh, euh, euh, ah, médical mm-hmm. mu ne Pape Alé ak Ahmed Aïdara dàq kàcc ci luy taskatu xabaar ci mum réew <laughs> te waxul kàcc de maa ko rafetal de ci digg ba la jaar nga <laughs> naan ma lijjantil Me El Hadji fu ma koy lijjanti. ah non lijjanti man dama ko bëgg a jël vraiment. ah dama jëli ko. lijjanti ko mën naa la jox numéro am de. waaw jox ma numéro am ma jéem ko sama waay la woon de. mais xanaa mën ne ko sama waay la woon su ma laajee ko moom deux ans ma wax wax ko. man tey. ma tudd sa tur. nga ne la su ma nekkoon moom deux ans moo fa leneen fexeel fexeel ba maître El Hadj Diouf moo la gën a xam deux ans xam nga deux ans fexeel ba sama tur boo leen toogee bu ko fa bu ko fa bu ne ko Socé Ndiaye moo ne ma naa ñëw fii comme ça ma jël la bantale la deux ans parce que askan deux ans signifie euh, nga ne ko deuxième alternance mu jeex deuxième alternance TV fooy voilà deux alternances mooy première alternance bi dégg nga loolu deuxième alternance bi parce que boo ne ko troisième alternance rek mu mere la. moom d' accord bu am naa ñëpp ne dañ ko namm ñëpp ne dañ ko namm. ah man de nammuma ko man de man de yoor yoor yéen a kaay ñëw ci Mimi Mimi Touré tout feu tout flamme. dafa métti. da koo jaxal démb ba mu jax. yëngal na game bi. manipulation à distance bi Macky Sall nekkee moo war a dakk député di ko ko defal ndax bëgguñ dara lu pos rek nekkaat député mi ngi nii voilà voilà Macky te eh eh mi mi nee na bëggul dara de daara lu dul ñëwaat au pouvoir rek. pour dellu si Sénégal. layaam layaamal gi yëpp Macky bu dellu see mi mi nee na moom du ko bett lu leer laa la wax. mais bu bëggee dellu si tam day toog. voilà Fulbert Sambou ak Didier Badji mii mhm. dañoo war a leeral seeni mbir Mansour moom. n'est ni élégant ni éloquent encore moins compétent. ah du samay kàddu de. moom ah yëpp la boole. riime na ko de Mansour Mimi moom moo ko wax. Soro Malick. voilà Sora. Sora Sora. Sora ki ne la mama ba. dégg Sora. du mbay de fay. programme opposition bi nag guddi toll nii ñëpp xam nañ ko. Mhm. benn programme la ñëpp. sonkoo jomaay jomaay mooy sonkoo nees def ba loolee dañ féewalal leen indi seytaane seen diggante waaw dugal fa iblis rek lii lii daal la mi muy wax lii la mi muy wax ba gis leneen voilà suñu làmba ngi nii non nañ def football ba pare football ah ballon d'or yow xam nga ballon d'or Ballon d'or Vinicius Junior ak Bellingham ak Rodri ñoom daal ñoom ñoo koy xëccoo. war nga ma laaj ndax xam nga ballon d'or. voilà jaa jaara nekkal naa nit rek te bàyyi tontu bi. del muñ di wan baat xamoo ko noppee rek dégg nga. waaw da nga ma laaj kay boo ma laajee bëgg ma tontu. Balla Gaye Essane Amadou Bari dafa tin point de presse tey loolu la ñuy def. Tarkinda je t'aime aussi. Tarkinda voilà tegal ma teg.